Vox Populi ne waaye yeewi askan wi day waaw fayu nañu de ci kaw administration territoriale bi lé préfet ak sous préfet yi waaw dama ne la justice baa ngay commencé weddi nag préfet ak sous préfet yi daanaka fépp ci Sénégal waaw dogal bi nga xam ne ñoo ñee nañ ko day tribunal bi nee leen loolee dal ndax gis ci diwaanu Mbuur gale yeewi askan wi gañe na te Ndar askan wi gañe na te Golf Sud gale askan wi gañe na te Sam Notaire yeewi askan wi gañe na waaw bi benn injustice la ñu réparé de dëgg la yeewi askan wi ña ceex-ceex may ree waaye gis nga maire bu Ndakaaru Ndiaye Jël Joob ah. waa gëm sa bopp day kalaame bi nga xam ne moom lañ defoon ci cour d'appel attakat yo dañoo bañ moo tax it Bougane Gueye Dany waa këram nee nañ tribunal bi gën a kawe di cour suprême foofee la ñu jëm Babacar Diop nee na élection locale doo am ci mim réew xanaa liste opposition bi yëpp daal di cay bokk Le bi day waaw ilaay woote gi woote gi ci nopp ku tax wala woote gi nit ñi dégg nañu ko de ndax cour d'appel waaw daal dinay boole maître Abdoulaye Tall ci élection yi ca doonu Mbour Déthié Fall a ah. nee na cour d'appel jox nañu dëgg ca ndar candidat ndar ba di Abba Mbaye daal dinay dëggal ne yeewee askan wi gañe na ca Fass ca njabel ca gànjol ca gàndong Déthié Fall ne ko yokku ca ca Thiès gëlé Yewwi Askan Wi gañe ca Matam ca Golf Sud ca Sam ca département bu Guédiawaye léegi nag ñi ngi toog di xaar ca diwaanu Ziguinchor tuyaawoon Déthié Fall ne parce que ñin nag duñu nangu mu ñuy def yëfu politicien yii ba bëgg a éliminer ay candidat wu Askan Wi yéen i kaay yu ne dàq bi nga xam ne ne dàqoon nañ ko seen liste ñoom waa Wallu defar sa gox réewum ñëwaati de wala ñu mbéj leen koy ñuy tërëf tërëf yi ndaxte nag ginnaaw maatam gële cour d'appel ba waaw liste départementale yeewee askan wi ca Ndar ak liste communale yi Gandon Fass Gandiol yëppay bokk ci élection yi laa la ca région wu Thiès Khalifa Sall ak ña mu àndal mujj am dëgg ca commune bu Mbour ak a ci Ndakaaru njaajël jóob gi lée Malick Gakou ña mu àndal ca yeewi askan woowe gagné nañu Golf Sud ak Sam Notaire alhamdulilahi rabbil alamin ay liste coalition opposition bi yu bari ba ci liste Adama Faye bii nga xam ni dañ koo génnee ci li ñu tegul fenn xam naa ni tribunal bi dana leen boole ci élection yi yéeni kaa waaye lii dal nag maanaam préfet ak sous préfet mooy mandargaal ne te deewuñu njaaxaanaay de de sur saane ginnaaw nag ba leen cour ñu ngi toogoon di xaar ngir justice bi daal ne leen leen ñu kayit gi ak kayit ga ca des ngir daal dëggal lii ngeen wax waaye gis nga loole bu ñu sukkandikoo ci ñoo xam ne ñoo jege lool wàllum justice di magistrature bi nee nañ loolee du force pour cour d'appel di woo préfet sous préfet naan leen indi leen ñu ay gindi du par force fu laay jaay Dakar de lu ko mooy mañam jeexal ko enquête yéene xam nga opposition bi de lan moo leen sobee waaw mooy agent yu bare bare dañoo maîtriser wul laa la wax gis nga lii moo sobee coalition yooyu askan wi kay waaw xeex ba gagné nañ ko laala wax moo xam ca ndar la ca maatam ca mbuur ca jas ca golfe sud ca sam notaire sur quotidien ne justice bi kay dafa weddi préfet laala wax allahu akbar Macky tamit waa këram weddi nañ ko de mardi tali ubil l'exclusive yéen kay nañu xoolal ma ñi nga xam ne kon dañ leen a investir xoolal ñi nga xam ne kàddu Macky Sall lañ jël football ko te ko nale samp seen bopp laala wax ay jile am na ca ñoo xam Ndoye Talla Sylla Aminata Angélique Manga Mamour Diallo Albert Ndoye Mary Teuw Niane Mamadou Mbàkke Ndaw yéene kaa gi ne xoolal ma ñu mel ni ñoom Amadou Ba Abdou Mbow Mimi Touré Mariama Sarr Néné Fatmata Tall Doudou Ka Seydou Gueye Maodo Malick Mbaye Maître Sidiki Kaba seeni ambition la ñu sànni fële bootu ci ginnaaw kàddu Macky évidence yéene kaa ne gis nga Aly Ngouille Ndiaye mi la ak Mimi Touré Maître Youm ak Matar Cissé waaw bombe à retardement la day yàgg rek waaye danañu kalaate termine yéene kaa ne ca Médina Gounass Guédiawaye way day ñaa ànd ak kosam te nee nañ danañ dem ca beneen liste laa témoin yéene kaa ne atekat yi day jubbanti nañu préfet de le quotidien yéene kaa ne maître Malick ci Barthélémy Dias li mu wax na du dem wuyu ji le premier décembre waaw ministre de la justice nee na même bu demul du tax justice moom dana def liggéey maître Malick Sall ci enquête yéene kaay ne te man nag li may xelal Barthélémy Dias mooy mu dem wuyu ji Samuel Ahmed Sarr ci Dakar Times waaw daal dinay tuumaal opposition bi la ne ay mercenaires lañ a ñuy masque a ko wax exclusive waaw nee na groupe violeur assassin ak ay sàcc te daal réew mi ñu bëgg a def na leen leer ni mënuñu ko juum nañu Babacar Diop waaw daal dina yàq Yankhoba Diattara de mar di Italie parce que Babacar Diop nee na gis nga Yankhoba Diattara mi lée poste ministre bi waaw moo ko dofloo Yankhoba Diattara instant bi bopp bi daa tourné ndax poste ministre bi te Yankhoba Diattara nag léegi soppeeku na wax waxeet la wàccu na lekkaat ko tifli na lekkaat ko allahu akbar critique yéene kaay ne a de maar day taali waaw muy église bi muy Serigne Mountakha muy Serigne Babacar Sy Mansour muy waa Yoff ak yeneen këru diine 24 heures yéene kaa Kër Massar ak Mbao waaw mais ñàkkub kaaraangi gi am kon ca tund woowee doy na waar ay woyoo fa ne di def lu leen neex laaste li ci biir njaboot li lée doy na waar awa Cheikh Meng nee na article 277 bu code de la famille bi mais góor la jox lépp lépp lépp lépp am na ñetti mère de famille sénégalaise yoo xam ne rey nañ leen ci Espagne gale box am na lu yónnuwul maanaa de bu ñu sukkandikoo ci lex africa ñi ci loorulee fa mu jaar ak docteur waaw nee na ñàkk tolloo la gi nga xam ne moom lañ ci nimiku moo doy waar déséquilibre dëggantaan biraan yaayaawan nee na dooleel Eiffage mais mooy dooleel France nguur gi daal projet yëpp waa bitim réew rek lañ koy jox ca jamono joojee ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu tegee leen ne lay le quotidien yéene waaye Cour des comptes rapportu 2018 ay rapport yoo xam ne dala yoo weesu nañu eh waay Samba <laughs> Sénégal daala neex waaye loo leen fi génnee ay rapport rapport rapport rapport rapport rapport te génnee woo leen rapportu pétrole bi ak waa ji ko naan génneewu leen dara parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën na la alaaji tëjal ay sanction war caa topp mais ay rapport yoo xam ne siré ay détournement mauvaise gestion année mu génn d'ailleurs du bi loolee. finalement da nga naan Cour des comptes bi sax ñoom est-ce que. waaw ah, loolu moom mooy coow li nag. instrument bu am solo la nag ci réew. parce parce que moom rek moo ñu mën a wax sunu koppar bi nan la ko gars yi gérer. bu dul loolu. Euh, ñi sont un peu secret quoi IGE yooyu. mais Cour des comptes moom. ça relève du droit. Mhm. parce que la justice est donnée au nom au nom du. mooy yéen a yow a ngi ci wàllu Sénégal yow lay ree jàmmi gox yi. république des valeurs gis nga ko dégg nga ñu ngi nii yeewi daal corrigé nañu préfet gars yi dañuy jëm ay ay géeme rek. dégg nga loolu exclusive yéen kaay ñu xoolal am na ñoo xam ne nag dañ jàpp ne su journal dafa jàpp ne gorewuñu am ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne dañu fipp. Mhm. ah oui parce que ñii ñëw kàddu wu ma moom dañ koo jël football ko tegee ko ne le ah. am na ñoo xam ne par contre ñu mel ni Amadou Abdou Mbow Mimi Touré Mariama Sarr Néné Fatoumata Tall seetu Ka Seydou Gueye Maodo Malick Mbaye Maître Sidiki Kaba ñii dañoo jël seeni ambition dugal ci sac tëj ni la topp li ma koy wax même bu dee neexule dégg topp ndigal topp ndigal par contre am na ñenn ñoo xam ne santage la ñu def fippu bu dul man du doon keneen wa ilaa day doon man par force mam booy gaaw mi ngi nii nii ngi nii Abdoulaye Balde mi ngi nii Diène Farba Sarr Mame Mbaye Niang dégg nga gaa yaa ngi nii Aline Badara Diop mu ngi nii Mamadou Dione mu ngi nii Abdou Mbacké Ndaw Talla Sylla sama ñaari mbokk tënkee ji ma si gis nag. ma di ko waaw Albé la. Albé ak Souleymane Ndoye. Ah, Albé ak Souleymane Ndoye. Albé Ndoye Souleymane Ndoye. laa seeni kaay ñëwaguñ ci lii nag mbir la nag. lii nag mbir la drame familial bii nga xam ni bis bu nekk mu am dégg nga loolu Awa nag article deux cent soixante-dix-sept du code de la famille. nga xam ne daanaka góor la dooleel la dooleel moom la jox lépp lépp lépp ndaw si daal xam naa jigéen ñi daal ñoom yaas ñetti mère na famille yoo xam ni ca Ita ca ca ca Espagne dañ leen a rey. ngay ndey moom démb gagné nañu. dégg astafurlaa match nul nañ. match boo xam ne moo si arrêt de la ñu dugal. kilifa diine yi nga xam ne nag namoon nañu médiation. ci diggante opposition ak pouvoir waaye daa mel ni mbir mi saboté nañ ko muy église bi sëñ Mountakha. sëñ Babacar Sy Mansour Yoff kër kilifa diine yëpp waaye gis nga mbir mi. Hmm. évidence yéen kaay nañu bombe à retardement baa ngi gis nga maître yu Mimi Touré. Hmm. Aly Ngouille Matar Cissé xam nga tamit ils n'ont pas le choix. ils sont obligés de rester calme ne pat boole lu leen neex ak lu leen neexul waaye lu leen neexul la journal bi nee na yàgg yàgg dana génn. dana génn kay. <laughs> yàgg bawul dara. yàgg yàgg bawul dara. enquête yéen kaay nañu xam nga opposition bi lan moo leen sauvé. ñii ñu jëlaat seen liste yi nii indiwaat leen nii nii ni nii nii nii. Hmm. mooy agent yi daf ci am ñenn ñoo xam ne dañoo maîtriser wul bagage yi. ma wul bagage hmm. gis nga am na ci ay communes yoo xam ne. gars yi dañoo deful rejet defu ñu defuñu rejet defuñu rejet ba ñoom seen bopp ñu forclos. Hmm. waaw. xam nga parti ak coalition ñooy forclos. ñu ne la zéro heure bu jotee. foo clos tardé nga mais signature régime bi aussi xalaa xamoo ne. dafa dafa non dafa am. dafa temps waaw. loolu loolu moo am Sam ak Golf. Hmm. waaw sous préfet ba. tamponné ngeeg signature am la. daa yéex ba génn. léegi pour rejeter gars yi moom si boppam moo forclos. daa bàyyi ba jaan wa topp mu bu dem mu topp sa watatu. Ah, ah, ah, day am di da ngaa foog ne gars yi doo ngay forclos waa mais yow. mi mi nit ñi lu tax ñuy xaru. looloo jar a dof yaa ngi si biir nit ñi de. mu ne. ma dof yaa ngi si biir nit ñi. nee na dof yaa ngi. ci nit ñi. coono rek gis nga alaaji nit ñi dañuy dox di dem am seen coono àdduna fii boo fi amee coono ñu yaakaar ni que ni yëfi tubaab la naa ni bàyyi sa yëfu tubaab yi te nga gëm yàlla fekk na da nga wérul da war a dem seeti ku lay mën a faj dañu waxante dëgg. Sénégal dañu mën a maslaa mën a. mais xaru gi mais gi moom yow kii yoo am nga jafe-jafe rek nga xaru alaaj. Euh, euh, Samuel Sarr nee na leader opposition bi ay mercenaire lañu. Uh-huh. fi la buy yàq buy yàq euh, buy bi la. Babacar Diop alaaji nee na Yankhoba Diattara moom poste ministre bi ndeysaan moo mujj yóbbu waaw xel mi. Yankoba xel mi ndeysaan dafa dem. waaw. <laughs> li ma gën a xel mi dem na. nee nee na mooy bëkk nekku Macky léegi. voilà noonu la dem na waaw waaw waaw. Yankoba Diattara alaaj. waaw xel mi moo dem. Babacar Diop nee na xel mi demul. ba tax na Yankoba Diattara la mu wàcc woon lekkaat na ko. la mu waxoon waxoon waxeet la mu tifli naanaat na ko maanaam Yankoba fi mu ne nii day dem nii rek mais bopp bi dem na. malat malat ah yéeguma ci loolu mooy li Yacine doon wax sànq. li Yacine doon wax sànq. voilà très bien njagawayu dem nii rek mais waxuma la njagawe eh Yaas. naam. waaw maa ngi ndàb de. Eh, Yaas waaw alaaj mani comme que comme que école bi école privée la te papa moom xoolal kaw lalam lay tëdd di def cours. <laughs> Uy nee école bi sa papa ko moom. waaw ah, jërëjëf sama papa ko moom kay. <laughs> Siré. waaw te man vacataire dong la aw ma fi sa contrat bu baax. léegi damay gàddu di expliquer bu ko neexee jël note bu ko neexee du jël note te même devoir bi sax ala kuli ali ndeyam mooy. mooy procédure. Ahmed xam nga nee nañ télétravail. waaw li mooy télématinal. <laughs> mën nga tourné waale kii bi jaajëf ñu koy jaajëfal. papa am ah, ah, neex a fi am. jaajëfal leen ci yéen kaay da nga da nga ñemee nuyoo quoi bay sëgg nii kii te li ngay def gëmoo ci dara Pape Mademba maa ngi lay nuyu. ma la wax dara. borom jam city tey àjjuma la moom loo mënti wax. nga dëgg nag nag tey moom dañuy kii. <laughs> loo dañuy ah, dama ñëwee provoqué. <laughs> Ah, non non nañ ñëm foofu rek garaawal xam naa fi nga ñëm après. <laughs> éliminatoire mondial deux mille vingt deux Togo Sénégal dañoo rek Témbo. waaw ni ki démb kon nag Sénégal amal match nul si digganteem ak Togo benn ak benn bi ci Togo bi nag ñoo ngi ko dugal ci quarante cinquième minute de jeu daanaka balaa ñu dem ci mi-temps ba kii nag di Richard Nane moo ko dugal waaye nag kii di Habib Diallo daanaka moom tamit balaa ñoo jeexal. lu jëm nag ci boobu la jongante ci la permettre Sénégal égaliser kon def benn ak benn seen diggante ak Togo en tout cas lu ci am daal kii di Aliou Cissé rafet na nag taxawaayu gaynde ak Sénégal yi ndaxte wane nañ caractère bu baax baax ci boobu la jongante ñu teewlu kii di Aliou Cissé Scénario euh, parfait dans le match. Je crois qu'aujourd'hui, je, je tenais à féliciter mes joueurs sur cette deuxième période où ils ont montré vraiment de la détermination. jafe na ngir ñu prévoir scénario yu mel nii ci biir match waaye maa ngi nag euh, jaajëfal bu baax a baax samay ah, joueurs gis nañ taxawaay bi ndaxte ñu mën a la première mi ak situation yi ni mu demee nga bañ a bàyyi dem ba ca euh, deuxième mi-temps ba égaliser caractère yu mel nii nag la équipe bi war a gën a taxawee dem ba jeex la ñu def ci jongante bi 15 premiers li ci ëpp ngir euh, dugal buñ ko defoon daanaka sax duñ egsi fii nii engagement équipe de Belgique bi sax moo tax mbiri demee ni waaye daal lu ñu mën a retenir mooy caractère bi nga xam ne gaynde yi wane nañ ko te lu mel dinañ ci gën a travailler. un petit peu mis dans l'inconfort euh, j'ai envie de dire que sur cette deuxième période là je crois que retiendra ça on doit continuer encore à à à travailler ces situations là. ñu nag décidé ba tey ak Aliou kon mën nañu jàpp nag gannaaw boobu la jongante Sénégal nag dafa gën a nag dëggal boppam ci première place bi am fukki poñ ak ñett balaa nag muy laale ak ñi di waa Congo niki dimanche bu juróom-ñeenti waxtu jotee foofu ci stade bu la jox bu Thiès waaye nag euh, ni ki démb euh, kii nag di euh, Sadio Mané dafa gënoon ci boobu la jongante Aliou Cissé dalal xel yi xam ne nag moom dañ ko rek doon préserver ngir nag moo bañ blessure bu graw kii nag di Pape Abou Cissé génnam ay changement tactique la woon bu ñu sukkandikoo ci Aliou Cissé ba tey ñu teew lay kàddoom La sortie de Sadio c'est vrai que nous nous nous nous déstabilise euh, un petit peu. génnug Sadio Mané bi nag xaw na déstabiliser un peu équipe bi ndaxte Sadio Mané ci biir terrain bi rek lu muy représenté dafa bëri. waaye nag blessure bi euh, taxut a garaaw noonu ñun ñoo décidé génnee ko rek euh, ngir nag euh, mën ko noppal génnuk Pape Abou Cissé bi nag neewul yu génnuk Pape Abou génnuk Pape bi nag génnuk Pape Abou bi nag du sanction dañoo gis ne nag au contraire mbiru tactique la ndax dañoo xool ci milieu terrain bi équipe bu Togo ñoom à trois lañ ci doon footballé te ñun benn moment suñu bi ñaax la ñu woon il fa lekk tamit ñu gën a renforcer li ni mel ngir mun a am équilibre au niveau du milieu. de terrain et on sortir sur les côtés et égaliser je crois que c'est surtout c'est une évolution tactique plus qu'une sanction. éliminatoire mondial Mali mu ngi ci troisième tour yi cinquième journée bi dañu koy wéyal ci àjjuma ji. kon nag Mali jàppal ni kon na fekk dina nag Sénégal. ak réewu Maroc ngir nag lu jëm ci wàllum barrage yi nga xam ne dañ ko amal nag ci weeru mars kon Mali jàppal ni démb moom. dafa daan nañu di waa euh, Rwanda ñetti bal ci dara foofu ca euh, Kigali euh, Uganda nag nekk si ñaareelu place bi moom dafa def match nul si digganteem ak Kenya groupe G bi Afrique du Sud kon ba tey na waxtu wi kon mën nañ jàpp ne jege ne lool nag ngir lu jëm ci wàllum barrage yi ndaxte ñii di waa Bafana Bafana yi ñoom ñoo daan Zimbabwe benn bal ci dara seen poule boobule sax ñu bokk ak Ghana Ghana nag comme ni amatul destin en ndax ndaxte moom. dafa def match nul ci digganteem ak Éthiopie euh, benn ak euh, benn kon tey jii nag la ñuy wëyal juróomeelu bëccëg bi ci groupe A bi ci kanam tuuti 13h Djibouti ak Algérie la Burkina Faso ak euh, Niger groupe F bi 16h Gabon ak Libye la 19h Angola moo ci dalal ñii di waa Égypte ci groupe E bi 16h kon Guinée Bissau dina ci laale ak ñii di waa Guinée 19h Soudan ak Maroc mi nga xam ne jot naa qualifié ba noppi la. éliminatoire yi sax jëm ci Qatar 2022 dafay wéy ca Europe ak nag Amérique ji si ji waaw day wéy foofu nag ca diwaanu Europe ak seen neuvième journée ci groupe C Italie mooy dalal ñi di waa Suisse Irlande ak Lituanie la groupe F Moldavie dina ci daali ak Écosse 19 moom day dem foofu ca Autriche Danemark di dalal ñi di waa Îles Féroé groupe F bi ak Pologne la Angleterre ci dalal ñi di waa Albanie Hongrie ak Suisse foofu ca zone Amérique fukk ak ñetteelu bëccëg kon ni ki démb nag la ko tàmbali Équateur moom moo daan ñi di waa Venezuela Chili moom dafa fekk Paraguay daan ko benn bal ci euh, dara Brésil daan tamit Colombie benn bal ci dara Pérou moom moo daan Bolivie ñett ci dara kon tey jii ci ngoon nag bu 23 heures jotee choc dina am nag ci diggante euh, Uruguay ak ñi di waa Argentine. basketball président bu euh, FIBA FIBA euh, ministre des sports Matar Ba ñu joxante loxo ngir lu kantanal wàllu basket bi ci Afrique. waaw kii nag di Amania jiite nag euh, ba mooy kuréel gi nga xam ne moo lëm ëmb basketball bu nag àdduna bi niki alxames ba léegi moo ngi fii nag ci réew mi moom nag jot na am nag ab audience ak kii di ministre des sports Matar Ba en tout cas Matar Ba daal xamal na ko nag dinañ def seen kim kattan ngir gën a mën a jàppale. basket bu Afrique muy rafetlu tamit nag taxawaay bi nga xam ne basket bu Sénégal am na ko ci Afrique kii di Matar Ba ay kàddoom Sadio bi Ka moo ko tataan. parce que kilifa gi jiite basketu mondial bu ñëwee toog ci Sénégal wax ni mu gisee basketu Sénégal ne ay jéego ñu ngi koy def ñun dañ ciy bëgg te continuer liggéey bi. Eh, wax nañ it ci li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique yeeg eh, basket wax nañu it même ci xalaat. naka lañu Afrique war a def ba réew yi nga xamante mën nañoo lëkkaloo war a mën a déposé candidature pour organiser li nga xam ne mooy coupe du monde loolu yëpp ay waxtaan la yoo xamante ne xalaat nañ ko tey xalaat it war a organiser fii li nga xamante ne mooy sommet bu mag ci wàllu basket parce que am nañ jumtukaay yi am nañ hôtel yi am nañu lépp lu war pour mën ko fi defee kon Afrique war na fippu bañati rek di dox nekk ci gannaaw waaye bu ñu mënee taxaw ci kanam it dañu war a fipp pour mën a taxaw ci kanam te li koy indi mooy ñu commencé lépp lu daan am ci Afrique ñu fexe commencé ko amal ci Afrique. Mambey nag ci kàddu kii di Matar Ba nekk ministre des sports ci la ñuy lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Diadio Touré comme 13h El Hadj Mouhamadou Mansour. Birame Birame kay day daw. Birame moom <laughs> boo xefee ndey xadu juuf nga fay dégg de. que kon ñu xaar la rek yow. kan man maa ngi 14h ah tey. 10 heures 11 heures jaajëf Pape Man